mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey aaya bi jëkk ci suuratul isra alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaa mbokk yi ñu ngi sant suñu boroom jalla wa ala moom mi nga xam ne ci ay xéewalam lay dëppaleeg jaam bu ko neex ca la nga xam ne ngërëmam moo ca nekk bokk na ci li jaam war a gën a yaakaar ci digganteem ak boroomam mooy sol bam sol dallam dem ca néegu yàlla ba di fas yéene jàng téere borom bi loole ay ngëneel yu bari nekk na ca loolu fa lilahi alhamdu ni ngeen ko yàgga dégge it mbokk yi nga xam ni ñoom ñoo dox suñu digganteeg ñi yàlla def mënuñoo sol seen dàll téere waaye ñu dem ba lépp loo xam ni dañ ko fi wax ñu mën koo dégg bal yàlla def sax ba lu bari ci li fi teew ñu mën a jàkkaarloog moom di ko seetaan loole ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ña taxaw ci sabab yooyu yàlla na yàlla fay leen di fàttali ne mbokk suñu guddik tey gi dugal nañu ci jamono bu barkeel bu jurit war a bàyyi xel ubbi na ñetti weer yi nekk suñu kanam muy ashhurul xurum ñetti weer yooyu bii ñu dugg nii ci guddik tey gi nga xam ne suba mooy bis bu njëkk bi moom la ñuy tuddee zulqaada sunu maam yi ñoo ko doon wax diggiw tabaski ba ca tegu di zulhijja sunu maam yi tuddee ko tabaski ba ca tege di muharram sunu maam yi tuddee ko tamxarit di ñetti weer yoo xam ni suñu boroom daf ñoo tere woon ñuy tooñ naka jekk suñu bopp waaye rawatina ci weer yi mu ne fala tazlimu fihinna anfusakum loolu kon ku nekk ci ñun war a bàyyi xel fu mu toll muy xalaat maa ngi ci weer yu yàlla wormaal weer yu yàlla wormaal ñaari taxawaay moo cay am naa góor góorlu ci tuyaaba ndax yàlla mi ko barkeel bëgg na ku cay góor góorlu wa man yuazim sha'air allahi fa innaha min taqwal qulub ñiy màggal màndarga yàlla yi day wane ne ragal yàlla mi ngi seen biir xol ya waaye ñaareel ba it danaa gën a sàmmwaat sama làmmiñ samay bët ak bépp place boo xamee ñi ni dana ma yóbbu cig ma yàlla kon loolu mi ngi noonu yàlla mi ko teral ci ñun yàlla ne ko teral ci ñun ci ngëm gu ànd ak jàmm teral ko ci ñun aafiye gu ànd ak jébbalul ko ñu dëppoog la nga xam ne bëgg na ko ci ñun te gërëm ko mi ngi noonu kon incha allah Cheikh Ousmane waaw dafa mel ne Cheikh Ousmane yaram bi dafa xaw a naqari tuuti tey waaw ala kulli xaal bu ñu jàngee en attendant bu ñu jàngee kon dañuy gis suñu borom day wax fii nii subhaana allazi asra bi abdihi sell ñeel ñeel na ka nga xam ni moo rañaani ci ab jaamam mooy doxloo ca guddi laylan muy ca guddi min al masjid al haram mu jële ko ca jàkka duñu wormaal ja ila al masjid al aqsa yóbbu ko ca jàkka ja gën a sori alladi baarak na xawla jàkka jooju nga xam ne barkeel nañ la ko wër li nuriyahu min ayatina ngire ñu woon ko lenn ci suñuy kawtéef innahu huwa samiu albasir sa borom yàlla muy aji dégg lépp muy aji gis lépp wa aatayna muusa alkitaab jox nañ muusa la nga xam ne mooy téere ba wa jaalnaahu hudan li bani israil ñu def ko mu nekk ak njub ñeel bani israil alla tattaxidu min duuni wakiila ca mooy ngalaway bu leen jël gannaaw man yàlla kenn ku ngeen di wakkirlu zurriyata man xamal naa ma anuux yéen njaboot gi nga xam ni yéen woon nañ leen ca gaal ga ngi ànd ak seen mam nuux nuux moomii day innahu kaana abdan shakura moom day nekkoon na jaam boo xam ni jaam buy sant borom bi la وقدينا إلى بني إسرائيل في الكتاب نيلا دغولون جمت بني إسرائيل كتيرب لتفسدن في الأرض مرتين ندين يقتك وصوف ناريون ولا تعلن علوا كبيرا تدين كوي كويلو كوي كويلو غو خمني غو مغلا كون ميغي نونو بودي شيخ علي من نيو كو جانغال avant سبحان الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا بارك الله فيكم kooku Alioune Sarr boobu ndongol Cheikh Ousmane bii la yal na yàlla boole leen barkeel kon suñu boroom mbokk day wax fii nii سبحان الذي أسرى بعبدي سل نيلنا كيغا خمني مورا ناني أبجامم بكو لغا خمني لي موي الإسراء بن خيو خيو لون بو أمون تي جامونا يننتبي صلى الله عليه وسلم borom xam-xam yi wuute nañu ana ban at la woon waxuma ana ban bis la woon ala kulli xaal am na fekk ne abi talib mi doon défendre yonent bi salallahu alayhi wa sallam faatu na xadija faatu na yonent bi tumuranke na suñu borom nag di ko xamal ni suuf su xat su tuuti si bu dee ne ñi ngi lay xeexit la nga xamee ne mooy waa asamaan moom ñi ngi lay màggal mu daal di koy jël ngir won ko loolu mu jële ko ci benn guddi yónni jibril alayhi salaam jibril ñëw indi benn waruwaay bu ñuy wax buraaq yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam nee na dafa nekk ci diggante fas ak mbaam yàlla def na fu bëtam tege tànkam tege fa moo ko jëlee makka yóbbu ko aqsa suñu borom jëlee ko wat aqsa yóbbu ko fekk neex ci kaw asamaan yi loolu nag kawtiif la boo xam ni yéeféeri démb dañ ko weddi suñu borom yàlla moo tax mu ubbee ko sell ñeel na ki nga xam ne moo def loolu te mbokk julit moom day gëm ne inna allaha ala kulli shayin qadir yàlla moom lu ko neex rek mu def te lu mu bëgg danaan amal mu doog mu am moo tax kàddu googu di subhanallah sell ñeel na yàlla yow jullit lu lislaam sunnaal nga wax ko ci bus bu nekk mbokk boy xool dana jege ñatt téeméer jëm ñetti téeméer yoon gannaaw bi nga jullee ba pare rek suñu borom subhanahu wa taala yoonal na ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw julli gu nekk nga wax subhanallah 33 fois loolu boo ko xoolee juróomi julli ñaata la 165 fois par jour julli dana toog di wax subhanallah subhanallah subhanallah 165 fois sujud yi ngay sujud sujud bu nekk yoonal nañ nga wax subhana rabbiyal a'la rukkoo yi ngay rukkoo rukkoo bu ne yoonal nañu subhana rabbiyal azim kon tudd selluk yàlla dafay lënkaloog julit bi mu koy wax ay téeméeri yoon subhanallah yàlla amul kuñ koy bokkaaleel subhanallah yàlla amul lu mu tëli subhanallah yàlla amul benn manqué manqué buñ koy waxee ila axiri suñu borom boobu kon niñ leen ko waxe sànq jël na suñu yeneen te yóbbu ko jële ko masjidul haram masjidul haram yonent bi mi ngi déparé ci néeg ummu hani bi nga xam ni kaka jur mooy abdul muttalib di bàjjanam loolu moo tax borom xam-xam yu bari daa di jàpp ni li ñuy tuddee masjidul haram du fi kaaba gi tege kese waaye masjidul haram mooy alxaramul makki loolu moo tax ba ñoom dañuy gis ni mboolem jàkk yi nekk biir makka masjidul haram la jàkk boo ci julli da nga am ngëneelu téeméeri junni julli amma nag soo demee ca masjidul kaaba moom la shakka ni foofu moom la mbooloo mi gën a bari te foofu la daraja yi gën a ëppee mi ngi ko jële ci jàkka yóbbu ko ci jàkka looloo tax la gën a màgg lam ko fa jox muy julli loolu it mbokk mu lay jàngal yow jullit xamal ni sa kërub ñaareel mooy jàkka ja jullit heure boo ñëwee këram fekkoo ko fa la ngay war a jëkk a xalaat mooy xool sa montar su dee waxtu julli la nga xam ne ma nga jàkka ja masjidil haram masjidil aqsa looloo tax juróomi yoon da nga gis julit sol dallam di dem ca jàkka ja mi ngi noonu suñu borom yàlla jox ko fa la gën a màgg la ñuy def muy julli masjidul aqsa boobee ba ko borom bi di wax ca mooy jumaa jee nekk ca Palestine nga xam ni yahud yu bon yi tey ñoo ko noot boobee la ci borom xam-xam yi wax suñu borom bim naan jëlee na ko masjidul haram di yóbbu ca jàkka ja gën a sori yàlla mi ngi doon junj ni am na jàkka buy gën a jege te mooy masjidu nabawi bi nga xam ne gannaaw at yu néew rek la ko yonent bi alayhi salatu wasalaam fondement ñetti jàkk yooyu la ñu yenent bi doon wax ne jullit day du takk ay bagage am jublu màggal benn place lu dul ñetti jàkk yi masjidul haram masjidul nabawi ak masjidul aqsa loolee ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee am na ñuy def ay erreur di tàggoo aj makka naan dañoo fas yéene ziyaare ji yenent bi salallahu alayhi wa sallam loole mbokk njuumte la heure boo jógee sa réew ji dem makka sa yéene mooy da nga war a dem aji ji falilah alhamd nag ak ñàkk a xam la incha allah yàlla du leen ko toppee rawatina sénégalais yi nga xam ni dañuy dem madina ba pare doo doogo nag armal pour dem aji ji waaye xatta bu doon tene ne yow yaa ngi jëm madina aj gi commencé gul ngalla waay sa yéene bu mu nekk maa ngi ziyaare ji xabra yonent bi déedéet sa yéene na nekk maa ngi ziyaare ji juma yonent bi salallahu alayhi wa sallam juma jooju nga xam ne rakka ba fa julli mu taxaw place junni rakka amma nag boo demee ba teg sa tànk madina moom su boobaa man nga am yéene nag ziyaare ji xabru yonent bi salallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu borom boobu ne masjidul aqsa dafa barkeel la ko wër naam yàlla barkeel na ko moo nekkoon dëkkuwaay yonent yi yonent yi ñëw gannaaw ibrahima daanaka 99 pour cent ñi ngi doon dund ci gox boobee di palestine ak li ko wër yonent bi alayhi salaam borom bi nee na da ko doon yónni ci kaw yóogi ci kaw ngir won koy kawtéefam gis na fa kawtéef yu bëri soo delluwaatee ci conférence yi wala xutba yi dañ la détaillé la fa yonent bi alayhi salaam gis dem na asamaanu benneel ba asamaanu juróom-ñaareel asamaan bu nekk yàlla won na ko fay malaaka boole koog yonent bu ko teeru dem na ba sidratul muntaha su dim googee nga xam ne nu mu ko melal yéeme na yàlla won na ko kawtif yu bari ci mbugal yi xaar xeetam won ko xéewal yu bari ci xéewal yi nga xam ne day xaar xeetam gannaaw ba nag mu daal di dellu siwaat bi mu dellu siwaatee waa makka wax leen ko rawatina saay saay bi abu jahal mu ne ko ndax muhammad su ma woo waa makka lii nga wax ñeme nga ko wax seen kanam mu ne ko waaw mu woo waa makka wax leen loolu histoire ba ala kulli xaal gudd na waaye bokk na am na ñu dem ca abubakar ne ko sa waa ji de tey wax lu la ëpp mu ne lan la wax mu ne nee na démb dem na masjidul aqsa nga xam ni wala boog mi ngi noonu dem na fële ci Palestine dellusiwaat ci guddi gi loo xam ne ñun un mois la ñuy def aller un mois retour mu ne moom ci benn guddi la ko def mu ne leen mais man gëm naa ko ci lu gën a yéeme loolu man gëm naa ko ci ne yàllaa ngi koy wàccel ay malaaka Palestine gi mu dem ñëw bu ko waxee kay loolu man gëm naa ko loolu mbokk muy taxawaayu julit waaye ñun ñi yàlla wërsëgal ñuy dund suñu jamono yi tey yàlla mujj may doomu aadama mu am pexe boo xam ne tey ñun waa jàkk jëpp mën nañoo dugg ci benn néeg néeg bi ne jajjit ak ñun cëppeel ñu fa nga xam ne mooy makka ci ay heure yu néew loolee mbokk ku ko waxoon waa makka yooyu ndax dañ ko gëm déedéet abada duñ ko gëm kon day wane ne la yàlla ak yeneen tam wax rek mooy dëgg même bu ci sa xel yëggul yow jurit lan mooy la war mooy dégg naa ko gëm naa ko borom boobu nag subhanahu wa taala daa di wëlbatikuwaat ne yonent yàlla Muusa day moo ko joxoon téere ca bari na di mingale histoire yonent yàlla muhammad ak yonent yàlla Moussa alayhim asalaam ndax seen histoire li mu méngoo ak it li nga xamee ni téere bi gën a màgg gannaaw alquran mooy tawraat tawraat boobu mu ne da koo defoon njub ñeel bani israil te it mbokk mi ngi noonu Moussa yàllaa ko yónni woon ci bani israil kese yonent yàlla muhammad rek la yàlla yónni ila kaafatan linnaas ci nit ñi mboole seen téere boobu bam ñi lan moo doon taxawaayam mooy taxawaayu alquran suñ borom da ko def hudan muy kot mbokk tey dans tous les pays du monde soo demoon ba la ñu laa jox permis dañ lay jëkk a paaseloo code de la route ba nga xam tey boo yoree oto naka nga koy dex nan naka nga koy dawale loolu it mooy alquran ji loolu la tawraat noonu injil noonu la mooy day jàngal doomu aadama yi ne nii ngeen war a doxale seen dund nii ngeen war a jaamoo seen borom lan moo nekkoon baasu téere ba mooy bu leen ma bokkaale ak kenn ca it loolu moo taxoon yàlla di yónni yonent yi mbokk nga la way xam leen ne mission principale bi tax yàlla di yónni ay yonent mooy mu xamal nit ñi ne yàlla wuruñu koo bokkaale ak kenn ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت lii mooy la nga xam ne moom la julit war da bàyyi xel suñu borom nag delluwaat ci ah yonent yàlla nuux daa ji ne ay yéen bari israil yéen yéen a ngi cosaanoo ci yonent yàlla nuux ci na am mbokk julit ñu nit ci nuux lañ cosaanoo nuux mooy ñaareelu aadama gannaaw bi yàlla indee tuufaan ñiy dundaat kaw suuf yépp ay sutam lañu suñu borom ne moom day nekkoon na santkatu yàlla e way yéen bani israil yu cosaanoo ci moom tey ngeen a sant yàlla ni nuux sant woon yàlla mbokk sant yàlla nuux nuux ga sant gu jafe la junni at ñu lay bundu xataal nga sax ci woote noppalu woo guddi noppalu woo bëccëg mbokk loolu mooy cant gu màgg cant googee nga xam ne moom la yàlla bëgg ci jaam yi yow mi fekk darsu alarba passé suñu borom mu ne ibrahima alayhi salaam shakiran li an umi moom it ku daan sant yàlla la yenent yàlla muhammad ñëw jaar seen tànk moom it nekk kuy sant yàlla ah yow sañu sañu muusa ak yow sañu fatima soxna fatima da ngeen a war a sant yàlla waaye naka la ñuy sant yàlla ndax mooy ñu dem dajale suñuy bâche indi café gu doy indi lekk gu doy góor ak jigéen ñi jaxasoo la wallahi mbokk sant yàlla ñett la sant yàlla mooy nga yëg ne mbooli mi xéewal ci yàlla la jóge ñaareel ba mooy nga feeñal ko ci sa làmmiñ bi wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis ñetteel ba mooy nga taxaw ci ay ndigalam bépp xéewal la la ci yàlla digal nga def ko bàyyi ay tereem lii mooy la nga xam ne nii moom mooy sant nga ñuy sante suñu borom jalla wa ala suñu borom nag ba mu santee lii bani israil teewul moom mi leen bind moo leen xam mu ne nag dogal naa ci yéen ni da ngeen doon ñoo xamee ni nii ñuy yàq ci kaw suuf ngeen doon da ngeen doon ñoo xamee ni nii ñuy nar a kawe kawelu ci kaw suuf ngeen di doon kawe kawelu ba ñu déggal seen borom kawe kawlu ci kaw jaami yàlla yi lii mbokk la suñu borom dogal ne bani israel dañ ko def mi ngi noonu kon cheikh ali
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدهم مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا وليتبروا ما علوا تتبيرا barakallahu fikum suñu borom mu ni fa ida jaa wa'du ulahuma bu dikkee digub lenn ca la ma waxoon ne da ngeen ca bew baasna alaykum ibadan lana daan yónni ci seen kaw ay jaam yoo xam ne ñeel nañ ñu uli ba'sin shadid ñoo xam ne borom kattan yu tar lañuy doon borom ay yu tar fa jaasoo xilaal diyaar daan dem ba wëndeelu ci seen biir kër ya ca diggante seen kër ya wa kaana waadan mafuula loolee nekk dig boo xam ne dig bu ñu def la summa radadna lakum alkarrata alayhim gannaaw ba ñu delloo leen ak kattan ci seen kaw mooy noon ya wa am dadnaakum bi amwaalin wa baniin ñu dooleel leen ci alal ak i doom wa jaalnaakum aksara nafira def leen ngeen doon mbooloo moo xam ne ni moo gën a bari ci mbooloo mi mën a génn dem di jihaati in ahsantum ahsantum li anfusikum su ngeen demee bay rafetal yéen a ngi rafetal ñeel seen bakkan wa in asatum falaha bu ngeen ñaawalee it yéen a ngi ñaawal jëm seen bakkan fa ida jaa wa'du al-akhira suñ demee nag ba dig bu mujj ba ñëw li yasuu wujuhakum ba seen noon ya ñëw ñaawal seen kanam ya wali yadxulu almasjida kama daxaluhu awwala marra ñu dugg ca jàkka ja comme nañ ci duggee woon ca njëlbeen ju jëkk ja wali yu tabbiru ma alaw tatbira ngir it ñu daal di mokkal lépp loo xam ne not nañ ko ak mokkal mi ngi noonu mbokk julit mbokk kon ñii ñooy bani israil suñu boroom xamaloon na Muusa na ko gis ne boo fi jógee sa xeet bi daan doon ñu bew daan doon ñu fittirlu waaye su boobaa danaa yónni ci ñoom ay jaam ñeel ma gis ngeen danaa ñi yóbbu ci ñoom ay jaam yoo xam ne ñeel nañ ma arab yi dañ daan teqale déggante waa ji wax naan abdi ak abdun li buñ ne kii sama jaam la mooy ku ñu gërëm la ku ñu féetewoo la waaye buñ ne kii de jaam la bu ma ñeel mooy maa ko moom rek waaye maa ngi moom siq ñu lenn looloo tax suñu borom gis nga bi mu wax yonent yàlla asra bi abdihi mu wax jaamam amma ñi mun a ibadan lii ay jaam lañu daal ñeel ma suñu borom yàlla dogaloon na ci bani israil ñu bew yàlla yónni ci ñoom am na ñu ne babil yónni la ñu jóge woon iraq ñu ñëw dal seen kaw jël seeni alal ah jël seeni soxna ak seeni doom dàq leen lan moo waraloon loolu li waraloon loolu mooy bani israil dañoo bewoon te loolu moo tax suñu borom di ñu wax ci mujj gi su ngeen ñaawalee seen bopp ngeen ñaawal loolin mbokk julit amul benn dëkk boo xam ne sax nañ ci xéewali yàlla booleeg wéetal yàlla di sant yàlla lu dul yàlla saxal seenu dal saxal seeni xéewal waaye heure bu ñu bewee suñu borom yàlla fokk mu toroxal leen ngir ñu dellu gannaaw looloo tax bani israel bi ñu defee loolu yàlla yónni ci ñoom ay noon noonu yooyee am na kum ci kum ñu ci tuddaloon muy jaaluuta jaaluuta ak ñoom jiite woon ñu dem tasaaroo bañ demee ba ci benn jamono gannaaw yonent yàlla Moussa lépp la loolu xew ca la bani Israil tuube rëccu ñëw ci seen benn yonent daa dina ko duñu bëgg nga tànnal ñu buur bu ñu àndal jihaati ngiree nanguwaat suñu kër ya mu ne leen yàlla tànn na paawluuta muy seen buur ca lañ ànd ak paawluuta booba yeneen ci yàlla daawuda yàlla yónnee ko ko mu bokk ci armée ba ñu dem xeexiwaat ak bani israil yàlla dogal daawuda rey jaaluuta noon ya daw bani israil ñëwaat Palestine ñu dem ba jëmmi jamono ñu bewaat bañ bewaatee suñu borom yàlla indiwaat ay yeneeni noonu noon yooyu dugg seen biir dëkk ya mabb seen jàkka ya tasaare la nga xamee ni nii moom mooy seen njaboot ga yàq lépp loo xam ne not nañ ko ca loolu it mbokk julit ba tey bi ñu ko yàlla di nettali ngallaawaay nañu xam ne dara taxul lu dul ni moytu bañ a jaar fi ñu doon jaar tey jii lu bari ci ay réewu julit ñu ngi dunde fitna yu tar waaye boo delluwaatee ci kasetu borom xam-xam yu jëkk yi da ngay gis ni lu ci bari ñu ngi doon prévoir naan état islamique yi état duñ tudde sax état islamique mooy état yi nga xam ne jullit ñi dañ faa nekk tey jii te ñu bari won gannaaw téereb yàlla bi lay aada yàlla ci kaw suuf boo muytu rek dana dal seen kaw ngir ñu dellu gannaaw loolu moo tax ba ngalawaay nañu xam ne tey jii réew yu bëri commencé suñu réew lan mooy problème waa réew mi tey mooy le pétrole le gaz les fonds le CFA le nangam le nangam amma li nga xam ne moo nekk ci réew mi ci shirk li nekk ci réew mi ci caaxaan li nekk ci réew mi ci ak mbew loolu da ngay gis kenn toppatoowu ko waaye wallahi mbokk julit buñ jàppee ne développement réew mi sécurité réew mi jàmm réew mi ñun dong ñoo koy amal mu am ci yàlla andu ci dañuy nax suñu bopp rek loolee kon nañu xam ne la gënoon a yey mooy ñu delluwaat tuubaat toroxluwaat ci borom bi jalla wa ala suñu borom yàlla lim ñu digdu dañ walaw an ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamawati wal ard bu doon tene ni min alsamai wal ard bu doon tene waa dëkk bi dañoo doon ñoo xam ne gëm nañ yàlla ci ragal yàlla mu ubbi barke asamaan ak suuf gars yi ku créé pétrole biñ naan gis nañ ko Sénégal ndax waa Russie ñoo ko fi indi gaz biñ naan am na fi ndax waa États-Unis ñoo ko fi indi fan la jóge mi ngi jóge ci borom kun fa yakun loolin mbokk ñoo xam ne lay indi jàmmi réew mooy wéetal yàlla lay indi jàmmi réew mooy nangul yàlla waaye lay indi fitnay réew mooy wan gannaaw njàngalem yàlla loolee kon ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na delloowal suñu réew mi cëlam gërëm kon mi ngi noonu Cheikh Ali
عسى ربكم أن يغفركم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا barakallahu fiikum suñu borom yàlla mu ni yéen bani israil asa rabbukum an yarhamakum mën na am seen borom yàlla day ci mu yërëm leen wa in uttum udna waaye su ngeen delloo ci mbew gi ñu delluwaat ci mbugal mi wa jaalna jahannama lil kafirina xasira def nañ jahannama ñeel yéeféer yi muy loo xam ne dana leen dance dana nekk seen laytaay ba pare mu peek leen inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam alquran ji day day jubale ci la nga xam ne mooy la gën a jub mi ngi noonu day gindi di jubale ci la nga xam ne moo gën a jub ci yoon wa yubashiru almuminin day bégal nit ñi nga xam ne dañoo gëm alladina yamaluna alsalihat julit ñooñu nga xam ne dañuy jëf jëf yi yooya anna lahum ajran kabira ne dana leen ñeel yool boo xam ne bu màgg la wa anna alladina la yuminuuna bil axira amma ñi nga xam ne nag gëmuñu alaxira aatadna lahum azaban alima ñoom day ñu ngi leen di waajal mbugal moo xam ne mbugal mu tar la wa yadu al insanu bi sharri duaahu bil xayr doomu aadama danay woo ci lu bon nami woote ci lu baax wa kaana mi ngi noonu wa kaana al insaanu ajula doomu aadama nekk na aji ku yàkkamti ay mbiram mi ngi noonu wa jaalna al layla wa nahaara ayatayni ñun yàlla ñoo def guddi ak bëccëg muy ñaari mandarga fa mahawna ayata leyl ñu daaji muuru mooy far li nga xam ne mooy mandarga guddi ga wa jaalna jaalna ayata nahaari mubsira ñu def nag mandarga bëccëg ba mu doon loo xam ne lu ñuy gis la mooy lu di ca mën a ràññee li tabtahu fadlan min rabbikum ngir ngeen ci mën a fàggu ngëneel yu bawoo ci seen boroom wa li taalamu adada sinina wal xisaab ngir ngeen xam ci limu at yi ak limu la nga xam ne yéen a ngi koy réglé di ko nattale wa kulla cheyin fassalnahu tafsila te bépp mbir ñun yàlla teqalee nañ ko ak teqalee mi ngi noonu mbokk suñu boroom mu ni bani israil su dee ne day doon ngeen sax ci njub day yàlla mu ne dinaa leen yërëm waaye bu ngeen delloo ci kàccoorte yàlla dana dellu siwaat ci yéen mbokk bani israil delluwaat nañ ci kàccoorte looloo tax suñu borom yàlla ca mujj ga la yónni yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam ñoom ca dajaloon ca madina mu toroxal leen dàq leen ñenn ña sax mu rey leen di bani qurayza gannaaw ba ñu dëkkee woon ca Palestine xalifaam bu mag ba di Omar ibn Khattab moo mujj ñëw ubbi Palestine daal di koy nangu ci seen loxo loolee kon la suñu borom digee ci àdduna waaye loolu buuñaa bu ndaw rek la ci ki nga xam ne dafa bew daal di fetteerlu suñu borom mu ne yéeféer yi sawara mooy nar a nekk seen wàccuwaay ca loolu mbokk la suñu borom yàlla subhanahu wa taala dogal borom boobu nag wëlbati ko waat daa ji ne alquran ji day mooy jubale ci la gën a jub ci lu mën a doon mbokk téere bi nga xam ne tey li ëpp ci julit ñi xamuñu ko ñaka ci xam ak néew jàpp nañ ne dañ koo war a jël rek di ko jàngal suñu baay ba faatu bu ñu waree sanc kër indi ko jàng ko bu ñu waree tudd suñu doom jàng ko ila axiri xamuñu ne déedéet mbokk julit alquran téere la bu lay gindi di la won naka nga war a jàppe sa boroom di la jàngal tawxid jàngal la sa turi boroom jàngal la sa melokaani boroom wala ni mu wéete jàngal la la nga xam ne mooy création bi boroom bi def wan la kattanam ci asamaan yi ci suuf yi ci géej yi waaye gannaaw loolu jàngal la yow yaay kan doomu aadama naka nga war a taxawee ci kaw suuf nooy taxawee say wayjur nooy taxawee sa njaboot nooy taxawee ak say noon nooy taxawee ak wàllu jihaad nooy taxawee ci lu nekk gannaaw ba ci wàllu jëflante yi naka ngay sëyee naka ngay commercer naka ngay defe say tukki bokk loolee dellu ci wàllu jukko yi naka nga war a jukkoo ila axiri alquran ji suñu borom bàyyiwu ci dara xale yi bu dee ne ñi miin tuuti tafsir soo dellu woon ci adwaul bayan bu cheikh mohamadul amin shinqiti rahimahullah aaya bi rek wax na ci lu jege deux cent pages ndax aaya la boo xam ne dafa ëmb lépp amul lenn loo xam ne ci diine ji la rek lu dul alquran tegtal na la fa nga ca war a jaar ca loolu moo tax yonente bi alei salatu wasalaam ba mu faatoo am délégation sahaba yi ñëw ci suñu ay Aïcha e yow mi Aïcha yéen suñu borom daa tagg yonente bi alayhi salaam ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yaa ngi ci jukko yi gën a màgg yi gën a kawe te yow yaa ko gënoon a jege yaa ko gënoon a xam dañoo bëggoon nga waxal ñu jukko yonente bi Aïcha wax leen wax bu gàtt kaana xuluquhu alquran jukko muy alquran ay yow julit jëlal alquran nga jàpp ko muy sab seetu te ji boo waree génn ci génn bu am solo da nga taxaw ca kanamu seetu ba jubbantiwaat sa la nga sol ila axiri alquran jàng ko amul lenn lu gën a jëriñ doomu aadama lu dul nga jël téere bi yàlla bi aaya bu ne nga xool ci sa bopp aaya boo jàng rek xool ci sa bopp aaya bu mën a doon imma da lay gëmloo dara wala mu weddiloo la dara wala mu digal la dara wala mu tere la dara aaya bu ne kawteef la aaya mooy mandarga mi ngi noonu mandarga la bu lay wax lii nga war a gëm lii nga war a weddi lii nga war a def lii nga war a bàyyi amul kenn koo xam ne jël na téereb yàlla bi aaya bu nekk mu mingi la ca boppam su dee la aaya bay digle ma nga ca woon mu sax ca ngank ca su dee ne la aaya bay diglee nekku ca woon mu daal di yéene gisub keroog lay dogu pour def ko mbokk ko mel nii da ngay bokk ci ñi gën a gindeeku ñi gën a jub ci jaami yàlla yi yàlla na yàlla boole ñu ci alquran jooju it gannaawum gindee jaam yi mi ngi leen di bégal mi ngi bégal julit ñi jëf lu baax ne fay bu màgg mi ngi leen ñeel mu ndax gaa yi yéen a ngi jàng alquran lan lay bégal julit ñi ndax yaa ngi jàng suratu rahman wa liman xaafa maqaama rabbihi jannataan ndax yaa ngi jàng suratul waqia ashabul almuqarrabun leen di ñeel ashabul yamin leen leen di ñeel ndax jàng nga yeneen saar yi nga xam ne suñu borom yàlla mi ngi cay melal ajjana di ko détaillé mbokk loolu moo lay xaar yow julit ak coono boo mën a nekk ci kaw suuf alquran mi ngi naan la muñal yàggatul yàggatul dund gi dafa gàtt léegi la lay xaar mooy aljanna ajjana jooju nga xam ne suñu borom nee na fayga lu màgg la naam rasul sallallahu alayhi wa sallam ne mbooli mi xiiwulu adduna kay gën a tuutale lu mu am ca aljanna dana am fukkam ci ay xéewal ca kookee gën a tuutale am na ku ko gën a kawe ku ko gën a kawe ba muy téeméeri daraja loolu mooy aljanna mbokk julit loolee nag suñu borom mi ngi ko waajal ñan ñi nga xam ne dañoo gëm tey def lu baax lan mooy def lu baax mooy loo xam ne sunna yonent bi alayhi salaam moo ko jàngale nga def ko na ko sunna jàngale ca ba nga koy def yàlla tax nga koy def lii dong mooy daje ci jëf jëf jo doon dooga doon jëf ju baax mi ngi noonu borom boobu nag ne ñi nga xam ne ñoom gëmuñu alaxira maa ngi leen di waajal wala boog waajal naa leen mbugal moo xam ne mu tar la te julit loolu ngay war a gëm mbokk ajjana yàlla defar na ko ba pare ma ngi ko dencal ñi gëm yàlla na yàlla booleel ñu ci la ca nekk ci xéewal yam ca denc suñ borom nee na malaaka yi sax xamuñu ko fala taalamu nafsun ma uxfiya lahum min qurrati ayun kenn xamul lu ma leen dencal ci luy bégal seen xol heure buñ ñëwee waaye mbokki sawara it yàlla defar na ko bam jekk ma ngi koy waajal ña nga xamee ne nii dañoo weddi alaxira borom bi bàyyi loolu daa di dellu si waat ci doomu aadama mu ne doomu aadama yi day li ñuy ñaane lu bon mel na ni li ñuy ñaani lu baax te mbokk doomu aadama da ngay gis heure bu ko xolam tàngee ka tàngal xolam day daal di ñaan yàlla rëbb ko léeg-léeg doomam lay doon léeg-léeg jëkkëram léeg-léeg way juram moom ci boppam da ngay gis ne heure bu ko nattu dalee lu tuuti tuuti mu ñaan yàlla subhanahu wa taala alkaange jëm ci kawam loolee nag mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu doon wax ngallaawaay bu leen ñaan yàlla jëm seen bakkan bu leen ñaan yàlla jëm seen njaboot bu leen ñaan yàlla jëm ci seen alal bala ngeen di dajeeg waxtu nangu ñaan yàlla nangu ñaan googee ngeen doon ñu alku borom bi ne doomu aadama day dafa yàkkamti daa bëgg lu ko naqari mu faju ci saasi loolu nag yow julit fexeel bul mel noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañu wax ni jàmbaar du ko dóor mu daanu waaye jàmbaar mooy koo xam ne bu meree mën a téye boppam man yamliku nafsahu indal ghadab yani kii mooy jàmbaar heure boo meree ba mer fexeel ba contrôler sa lammiñ bi bu ci wax lu dul lu yàlla gërëm yonente bi alayhi salaam daana ko ñaan yàlla inni as'aluka kalimata alxaqi wal adl fi lghadabi war rida e yàlla yàlla nag ma wërsëgal lu ma mer mer mer du ma wax lu dul dëgg du ma wax lu dul ak maandute lu ma kontaan kontaan du ma wax lu dul dëgg du ma wax lu dul ak maandute mi ngi noonu gannaaw ba it bi suñu borom wax doomu aadama dafa yàkkamti sa dund bu ko teg ci yàkkamti mbokk wala fi dañ naan yàkkamti yàqule lépp looy ut ànd caag dal ànd caag teey wala fi dañ naan tooba saxal wala mu sulli ku koy def doo góob abadan fokk boo demee ji la nga ji da nga koy may délai mu doog a doon luy sax waaye doo ñëw rek ne ñebe bis ji naa ko léegi ay màggal wala mu sulli la déedéet lépp lay wut yow ndaw yaa ngi sakku alal àndal ak dal àndal ak tey bul yàkkamti bul dugg ci lu xaraam mukk bul dugg ci njuuj njaaj gis nga li yàlla tudd ci yow bala ngaa dee rek da nga ci jot lépp loo xam ne yaa ngi koy sàkku ci sëy di ko sàkku ci ab tukki di ko sàkku ci lu mën a doon ànd ci ak dal mooy sabab loolu la nga jàpp ne lii mooy sabab bu dagan li ci des nga sukkandiku ci yàlla te muñ muñ gu rafet heure boo xamee ni ñaar yee boole nga ko lu mu yàgg yàgg yàlla dana la wursi waaye li ëpp ci doomu aadama yi la yàq seen mbiru àdduna yàq seen mbiru diine mooy la nga xamee ne mooy ak yàkkam ci kaana al insaanu ajula suñu borom yàlla nag wëlbatiku delli si waat ci ñun ci aaya yi nekk ci nature bi yàlla mu ne maa leen indil guddi maa leen indil bëccëg mu nekk ñaari kawteef mbokk guddeeg bëccëg kawteef la deux heures ci gannaaw ñi ngi jàkkaarloog jant bi nekk ci bëccëg tey ñi ngi nii ci guddi wala états-unis ñoom ñi ngi seen bëccëg loolee kawteefi yàlla la sun maam yi daan ko constaté ñu dem ba jamono suñu borom xam ne mentalité doomu aadama yi évolué na mu won ñu lan mooy waral guddeeg bëccëg mbokk lan mooy waral guddeeg bëccëg mooy suuf si ñu war benn bal la buy flotté ci jaww ji suuf soosu la yàlla di wëlbati bu jàkkaarloog jant bi ngeen nekk ci bëccëg bu ko tourné côté bi nga nekk yow wan gannaaw jant bi ngeen dem ci guddi ainsi de suite mu nekk rotation boo xam ni ah mooy moo def guddi def bëccëg yatlubuhu xasiisan fu mu mën a toll am na ñuy dugg ci guddi am ñuy dugg ci bëccëg am ñuy dugg ci guddi am ñuy dugg ci bëccëg loolee mbokk kawtii fi borom bi la mu ne nag moom moo far la nga xam ne mooy kawtii fi guddi gi lëndëmal ko dalal ko ngiree doomu aadama yi man ci noppalu man ci am sutura mi ngi noonu da ngay gis lu bari ci àll bi guddi la ñuy génn faji seen aajo guddi mooy la nga xam ne moo lay dalal amma nag la nga xam ne mooy bëccëg bi yàlla génne aayaam ca mooy jant bi na dàng leeral la nga xam ne mooy jamono ci ngeen xool tey ville bu mel ne Dakar ñaate millions de lampes la ñuy utiliser pour leeral ko ma gaa yi lampe yooyu yépp ndax mën nañoo remplacer jant bi abadan mën ñu remplacer jant bi yàlla indi ko muy benn lampe bu ñu tiim ca lampe boobu scientifique yi nee nañ mi ngi à cent cinquante millions de kilomètres borom boobu subhanahu wa taala indi ko mu ñuy leeral ngir ñuy mën a jóg ñi jëm ca tool yi jëm ca tool ya ñu jëm ca atelier jëm ca atelier ñay dem feneen dem feneen ngir ñu mën a sàkku ji suñuy ngëneelu borom waaye it loolu di wëlbatiku di guddeeg bëccëg man ñoo xam loo at yi man ñoo xam loo itamit natt yi ñuy natt tey jii bu ñu jëlee ne ah bu ñu demee day fukki fan ak juróom ci ramadan daañ amal nangam ak nangam lan moo ñu koy xamal mooy heure bu jant bi fenkee ba so ah léegi bu fenkaatee benn jour ngi noonu bu fenkee so benn bëccëg dem na bu fenkaatee guddi ga jeex na ñu ne benn jour a ngoog di ko def di ko def di ko def ba baa tey jii weer wi teru ñu siintu ñu ngi mel ne rek guddi biig séentu nañ weer bi buñ ko séentu woon kon tey dañ naan àllarba jii day mooy nekk bés bu jëkk ci zilhijja mi ngi noonu ci zilqaada amma comme séentu nañ ko gisuñu ko ñu naa kon suba la kon jant bi ak weer bi guddi ak bëccëg ñoo ñuy xamal at yi dañuy xamal it ni ñuy nattee suñu borom yàlla dogal atum jant ëppe atum weer fukki fan ak benn looloo tax fanweeri at ak ñett ci jant bu nekk day nekk fanweeri at ak ñeent ci ati weer yi looloo tax ngay jàng ca suratul kahfi suñu borom ni xale ya day seen xuntima def nañ fa ñetti téeméeri at wasdaadu tisa ndax téeméeri at yu nekk ci atu jant bi day nekk téeméeri at yu teg ñetti at ci atu weer yi kon maadaama def nañ ñetti téeméeri at ci atu jant bi dana am juróom ñeenti at yu ca tegu ci ati weer wi loolee kon mi ngi noonu jullit xam na lan mooy nattuwaayu jant xam na lan mooy nattuwaayu weer borom bi nag jalla wa ala mu ne lum mën a doon ñun yàlla ñoo ko teqalee ak teqalee bokk jullit mi ngi noonu suñu borom ci nattam bi nga xam ne erreur du ci am laajal tey ab scientifique boo jëkk a jot ne na ko waaw le vingt cinq mars 2020 kañ la jant bi fenk mën na def calcul ne lay heure heure tel lay doon kañ lay so heure tel lay doon loolu lu waral loolu mooy benn calcul la boo xam ne suñu borom yàlla mi créé jantam suñu borom yàlla mi créé suufam ca nee na walaw kaane fihima alihatun illa allah la fasadata bu amoon beneen ordre bi joxe ordre bu dul yàlla kon jaxasoo am yàlla mi commandé suuf commandé jant bi da ngay gis ne moo ko harmonisé ba zéro virgule zéro nangam fraction de seconde de retard du mën a am ci loolu lii lépp mbokk it lan la lay jàngal yàlla mi tëral yoon bi ci jaww ji lépp organisé wu da lay jàngal it alxuraan jii mu la tëral boo ci ju boo ci jaaree doo am problème am déet loolu mi ngi noonu loolu rek la lay jàngal yàlla moo organisé jaww ji amul kenn kuy xalaat ne bu demee woon ñi lay gën a baaxee naka noonu it téeréb yàlla bi diine yàlla ji doomu aadama yi li leen waroon di noppal moo ñépp nangu rek ne mi ngi jóge ci borom asamaan ak suuf kon ñun ñépp nañ ci bokk tënku bu ci kenn indi xalaatam lii buñ ko defoon dañuy am jàmmi àdduna am jàmmi alaxira yal na yàlla delloo ñu ci ab téeréem delloo ko gën a rafet yal nañu boole ca jaamam ya ko gëm boole ñu ca jaamam ya koy jëfe yàlla mi ciy gindee yal nañu ci gindee àdduna gindee ñu ci alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw in waaw inna ba'da zanni ismun waaw lenn ci njort suñu borom dane lenn ci njort li ay bakkaar la loolu luñ ci wone ne mooy suñu borom terewuñu ñuy jort waaye nag bul def ne loo jort rek jàpp ne yaqin la doomu aadama la nga jort bu amee it da nga war a gëstu ba am confirmation dogo dogo waaye bul jàpp ne li nga jort rek nga jàpp ne lii mooy li am ndax bari na loo jort fekk demewul noonu moo tax suñu borom ni inna ba'da zanni is mi ngi noonu wallahu subhanahu wa ta'ala alam waaw naam bismillah waaw wa alaykum assalam wa rahmatullah waaw koo xam ne samedi ak dimanche rek lay woor waaw mu ne samedi ak dimanche rek la dul woor waaw kooku day waxuñu ne day def lu xaraam waaye li ñuy wax mooy deful la gën nañu xam ne mbokk koor la ca gën mooy waruñoo passé la yonente bi alayhi salaam ne woon mooy ngën la gën ci koor te mooy genn wàllu jamono moo di ne ne woor tey dog ëllëg woor tey dog ëllëg su ko defee bu dee munta ñàkkit ñi fexe ba di woor lum bon bon semaine bi quatre jours mi ngi noonu di woor quatre jours par semaine amma bépp koor boo xam ne dafa ëpp kooru daawuda yow loolu da ngay gis ne boo defoon la gën loolu mooy la gën la ci des kon coono la te yonente bi alei salatu wasalaam nee na koor gi gën ci koor yi mooy kooru daawud te moo di da daan woor tey dog suba woor tey dog suba loolu kon loolu muy def dañuy wax ne baax na waaye nag la gënoon a baax moom mooy mu yem ca kooru daawud te mooy kooram du passé weer wu nekk buñ calculer lam ca woor nekk 15 jours mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam waaw ndax baytul maqdis ndax ñu ngi fay julli ndax ñu ngi fay julli ba tey naam ñu ngi fay julli ba tey baytul maqdis ñu ngi fay julli ba tey yaa ngi gis léeg-léeg yahud yi bon yi ay ajjuma ñu sentir ko duñ nangu benn jeune dugg fa ala kulli xaal ña ngi fay julli ba tey waaye li problème bi rek mooy mi ngi nekk ci ña koy contrôler mooy yahud yi ñoo koy contrôler mi ngi noonu seen pexe yépp nag mooy far ko ci kaw suuf ndax ñoom ci seeni wax yoo xam ne nii gëmuñu ko waaye dugal nañ ko ci bopp nit ñi dañ naan la nga xam ne mooy temple yeneen yàlla Suleymaan mi ngi nekk ci suufu masjidul aqsa ba nga xamee ne seen wax yépp mooy nu ñuy def ba tëj jumaa ji doonte ne la pexe yoo xam ne ni yàlla bu leen ci yàlla jàppale waaye daal nañu xam ne ña nga fay julli ba tey képp ku yàlla mayoon pexe ba nga dem fa it ziar fa ñëw na ci ay hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na julli goo fa julli dana nekk juróomi téeméeri julli ci yoo julli woon feneen fu dul moom ñu ngi noonu bu dee jàkk yonent ba junni julli la bu dee masjidul haram téeméeri junni julli la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam
maanaam pour pour moom ak pour nga xaw a aéroport tey bu doon màgg dem ba feebar dab la ba tey bu mënoon génn ba nga nekk loolu la may at
waa ji nga xam ni dafa dem makka feebar muntul dem arafat lan mooy atteem lii atteem mooy ajam baaxul ajam baaxul allahuma lu dul jamono ji ñu toll bu dul nii xëy na lu yàlla dogal mais bu dee feebar bu moom yóbbu na la hôpital da ngay gis ni waxuma makka waaye madina sax ña feebare madina arafat jot dañ leen di dugal ci ay ambulance yóbbu leen ci hôpital yi arafat ya ba ñu fa yendoo ba ngoon ñu doog leen faa jële su ko defee arafat bi moom benn jour la day raw leneen lu dul arafat rek mënees na koo dabantal ci biir at ji waaye arafat moom bu la rëccee moom rëcc na la waaye bu dee ne daal ci organisation ya nga xam ne saoudien yi yal na yàlla fay leen ci wàllu googee nañ koy def mooy képp koo xam ne moom feebar nga dem ci hôpital ya bu dee bisu arafat jot daañ fexe ba nga dem teewi ji arafat amma nag ka toog ci hôtelam xëy na kenn xamu ko kooku moom nañu xam ne arafat moom bu la rawee ak garaw na la wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ala kulli xaal waaw mbokk kon ñu mujjee ci mbokk bi rek insha allah naam maanaam man am béykat la tamit léeg-léeg dañuy xaar ba guddi te jiital bi ñu gën sama xaw bu ko defee ma xëy de ñaan yàlla bu gën a bon dama leen ko ñaan ak moo xam bi ma leen ñaanalee ak moomu daanaka ba ma maanaam ñu koy def ñoom ñëpp lañ yóbbu sànq ma mu ne mu ne xam ne lu ñu def dé- début bi moom raw mu ne mu ne mu ne mais lu mu wax ci début bi mu ne
dañ naanal ko yi sàmm guddi jël seen nag yi guddi yóbbu seen tool ci toolam ah waaw wala kulli xaal day wax ni dafa am ñu ñëw guddi coolam sàmm fa mu ñaanal leen lu bon yàlla dogal ñu jàppalee ñoom ñëpp waaye ala kulli xaal wala am nga ci am nga ci droit waaye nag euh, li gënoon mooy ñu fexe rek masla ak ñoom fexe ba medalu la sàq ndax ñaan moom la nga xam ne mooy danger waaye yonent bi alayhi salaam daan nañu wax na moytu leen ñaanu ku ñu tooñ ki ñu tooñ mbokk firiwul ne daa am martaba ci yàlla wala nangam même bu dee yéeféer même bu dee yéeféer yow julit nga tooñ ko mu dem woo yàlla directement ñaan la yàlla loolu mën na la dal moo tax yonent bi alayhi salaam moytu leen ñaanu ku ñu tooñ ndax nit ki bu ñu ko tooñee digganteem ak yàlla barrage amatu fa loolee kon ñu bàyyi ko xel bu baax ñu ngi ñaan yàlla musal ñu ci ak tooñ àdduna ak àllaaxira waaw mais Cheikh Ousmane doon ma xewal moom waaw nobbi na Hein?
xol bu waxul moom naqare rek waaye doon jot ah waaw baax na incha allah waaw barakallahu fikum waaw kon mbokk incha allah mën nañu doy loo loolu di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu tawfiq fi dunia wal axira di ñaan it sa- Cheikh Ousmane moo xam li tax ba mu am gàllankoor ci ñàkk tari gi yal na yàlla woyefal ko te defal ñu aafiya defal ko ko bépp julit wasala ah waaw mi ngi noonu xam naa monsieur cotisation it mu may fàttali na alarba bi bii di ñëw bu mbokk yi bañ a fàtte 1000 francs yi indaale yal na yàlla defal ñu jàmm fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain